ndongal taalibe laa ju ñuy wax Mor Ngom doo fële ca Bawol màgge fa jàng fa njàngum tut tànk jóge fa ñëw Ndakaaru gi euh, jàmm fi jàng fi euh, wut fi xam-xam jóge fi dem tugal ba tey lii yàlla indi ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa Bawol events nga wax ah loolu lu am solo la parce que xam nga xeet yi ngeen di def nii dafa baax ci doomu aadama ndax lu tax mu baax ci doomu adama nit ki euh, dafa war a doylu waaye doylu bu ñu koy wax waxuñu ko ci xam-xam waxuñu ko ci jëf loo jëf rek xeet ko loo am ci xam-xam xeet ko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 ci li nga ma laaj damay sant bu baax yàlla bon gërëm ko moom parce que li ma koy gërëmee dafa nekk ndaw moi euh, je crois que ci biir parti bi laa ko xamee bien que euh, xam naa ay waajuram ndax taalibe murit laa te defe naa ne kërub Mbàkke bu sant Mbàkke buntu kër bu ñuy ubbi mu sant Mbàkke Touba amu ci bu ma umpale donc xamoon naa ko ci ay waajur waaye wax dëgg yàlla maa ngi gën a miinanteeg moom ci wàllu politique euh, ba dara dul dara ñu ànd ñu euh, ñu présenté ma ko euh, mu nekk xale bu am jom bu am fulla bu xam li mu bëgg aussi parce lu tax moo wax loolu. bi ñu koy xam ñun ñoo ngi nekk opposition même mu bokk ak euh, ñeneen ñoo xam ne ni ñoo ko mag am ci ay nattangom mais néewoon nañu jóge Touba ñëw na dañuy dugg ci parti APR jàppale président Macky Sall dans l'opposition maanaam ci ba ñuy wut moom ci ay tolof tolof nag. Euh, ci tolof tolof bi mu ci jëkk am mooy ki nga xamoon ne moo nekkoon kilifaam ci jamono yooyu dafa ñëw fekk euh, ci ginnaawam comme ni mu toog rek def photo président bi moom it mu jël photo président euh, def ko ci ginnaawam kooku nekkul dindil photo bi mu bañ kooku ci bari doole mu jëlee ko fa mu ànd ak ngëm-ngëmam ndax taalibe Sëriñ Tuubaa moom du ragal rawatina nag ku ku ku ku maamam sant Mbàkke te jàpp naa na ñàkk ragalam googu ak pas-pasam boobu moo ko indil tey lii euh, moo ko indil tey lii bi ñu nee tàkk ba président Macky Sall jël réew mi ku am ak dal la ku am ak muñ la ndax wax dëgg du jëluñu rek réew mi euh, nit ñi nommé poste yi ñu jox ko bon taaxirlu na di wolof di wax naan boo yàggee ci ba euh, teen bi bàkk fekk la fa defe naa ne loolu dal na ko euh, ndax bi mu jógee ci loolu ca mbirum hôpitalam moom xëy na yàlla aussi xiir na ko ci mu dem indi sama wax ci commencement bi rek laay indiwaat bu la mukk dara jaral ci àdduna ba nga amuk doylu ci sa xam-xam wala ba nga amuk doylu ci sa jëf ju rafet loolu xëy na dal na ko parce que li taxoon moom mu dem sàkku ji xam-xam dem bindu jàngi parce que bi muy ñëw foofu BTS la fa amoon mais ginnaaw bi dem na ba am master euh, wutiwaat MBA yi ci ay écoles yoo xam ne nii école yu yu mucc ayib la wax dëgg yàlla école wu euh, njàng mu kawe la ba pare ci loolu ñuy dox di dox ba yàlla président de la république dénk ko aussi benn structure boo xam ne ni dafa nekk comme yor ña nga xam ne nii li ñuy wax directeur des ressources humaines mu nekk ko fa euh, muy ADE te ñoom ñoo yor di càmbar ak saytu lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu euh, administration ci mbirum informatique euh, mu toog fa xaar fa yàlla bon di liggéey aussi liggéey bu rafet ñu toogub diir président moom mi nga xam ne moom la yàlla jox tey man-manu tànn mu tànnee ko fa jële ko nommé ko directrice nationale de l'assistance et de la promotion des Sénégalais de l'extérieur euh, loolu aussi di nekk direction boo xam ne nii maanaam kuréel bu nekk ci biir ministère euh, des affaires étrangères wax dëgg yàlla mu liggéey fa liggéey bu rafet euh, daan fa dooleem aussi na mu waree continuer aussi di politique politique bi mu daan def Touba. ak ci biir kàngamu parti yi cadre yi parce que aussi euh, am yi dafa am am na fulla am na fayda ba lépp lu muy def ñaare daf ciy fësal boppam ginnaaw bi bi président de la république wóoloo kenn koo xam ne ni doom bool la di sama rakk di sama xarit di sama lépp euh, ndax duma ko faral di bàyyi di fàttali daam Diop mi nga xam ne tey moom mooy ministre bi ñu ëgsee man ba nekkee ministre des infrastructures euh, ci xale yi ma jëkk a tànn nekk ak ñoom moom ak Karim Fofana bokkoon nañ ci Abdou Karim Fofana mii nekk tey ministre euh, te wax dëgg yàlla li ma leen tànnoon nekk ak ñoom awma ci lenn lu may rëccu parce que gis naa ne nekk gi ma nekkoon ak ñoom delloo nañ ma cër boobu ci mag delloo nañ ma cër boobu ci politique aussi euh, donc bi nga xamee ne daam Euh, nommé nañ ko ministre daam gis ak man mamam gis ak setam ci liggéey gis engagement ci politique tànn ko teg ko ci wetam mu nekk daaju ministère loolu aussi ma di ko ci félicité di leen félicité ñoom ñaan ñëpp di leen ñaanal yàlla sunu borom mi nga xam ne ni moom la dara tëwul te moo man lépp ci Xaadimu Rasuul mi nga xam ne ni mooy sunu njëslaay fépp ak fu ne mu defal leen fa ndam fu ndam di yem te yeneen i ndam aussi tegu ci parce que ay ndaw lañu ay te ndaw moom comme mi ngi dox rek dara jomb ko